Senghor ca ca tugal nee na ma di ko yóbbu Normandie waaw ma di ko yóbbu Normandie nee na mësuma gis mukk mag mu yaru comme Senghor mukk nee naka la génn tuuti nee na mu làkk ma ci tubaab ni ma est-ce roupiller un peu ndeysaan ne baatu roupiller sax daanaka li nga koy dégg du bare waaye mu di ma tàggu ndax sañ na ko walla déet nee na jooy xaw naa ko def ngir mag mu yaroon noonu mosuma ko gis wallaay ndeysaan est-ce que je peux roupiller peu ma ne ko toujours daf koy def nelaw tuuti rekk bàyyi doy na sëg mos ci waaye di nelaw di nelaw di nelaw ba ñëpp romb la fa boobu baaxul boobu baaxul de tabarkalla tabarkalla mag ñi kenn gënu leen eh, góor góor gu baaxoon la te moo jur Ablaye Wade mii tey Ablaye Wade lu ne ànd nañu def ko xam na ko sax moom tabarkalla tabarkalla ngeen sant ko ci sama wàll waaye ngeen sant ko léegi sëriñ Moustapha ak may wax ni ma lu ne euh, dimbaleen nañ nu ko euh, surtout ministre de l'intérieur moom ngeen sant ko bu baax a baax a baax tabarkalla moom daal yëf yi baax na euh, dana rus yonent bi borom guddi gi ah, dafa nu yiw tabarkalla tabarkalla lu bëgg nañ ci bu baax a baax tabarkalla waaw kay ma moom daal lu na masa war ci réew mi dunu ko ragal dañ koy def loolu la yàlla dogal réew boo ca bokkee lu réew may def rek booy ba bokk ca te it nu di ca am sag waxtu wu nekk ndax sag bi mooy pas-pas sag bi mooy pas-pas euh, bu nu leen waxoon fi nu jaar ak réew mi du ngeen ko gëm tabarkalla waaye rekk gis ngeen yàlla fi ni mu ko defee su ko defee sunu kilifay bopp yi li ñu nuy faral di digal rekk maanaam ci moytu yi yi yi yi jaaduwul ci jël foto kilifa yi di di taf la neex waaw yooyu dafa mat di ndax wax naa ko fi at mu nga xam ne lu ne dégg naa ko ci yàlla xam na ko euh, te yiwu rekk a taxoon waaw te tey la gën a war nag mu mel ni ca gannaaw sax déggoon naa ay kilifa yu ñu may wax ni wax nañ ko ci télévision ni sëriñ Saliou moo leen ko sant pour ñu wàññi yenn photo yi ci yenn barab yi waaye fekk na li nu ci dégg dama dem ndar booba yàlla xam na ne El Hadj Abdoul Aziz moo ma woo ma dem fa ñuy waxtaan mu ni ma man sama entourage dama leen di tere ku ci bëgg jaxasoo sa jabar bu ko def ci néeg bu foto Serigne Babacar nekk te loolu ma xam ni looloo jaadu xamuloo mag ñi bu ñu masaan am photo Maodo dañ koy wutal rideau kenn du ko gis kenn gis loolu man gis naa ko ba tàyyi ba moo tax yenn photo yi rekk di ko suturaalit baax na ayul yooyu yëpp ci ummatan wasat ci lu dugg di seet rek na mu gën a jekke ah xam naa xërte nag xërte la la la tudd waaye xëru wolof itam baaxul xëru wolof baaxul ndax la jaa njaay daan na wax ni bu la yàlla yéenee yiw ba tàllal loxo xëcc la nga jëm kaw asamaan ne doowoo loolu dul ñoom ñi ñu jàpp ci sa tànk xëcc la ba nga wàccaat ñu yóbbu la kër ko cubar bi dara nga ci mën waaw moo tax rek wattandiku picc daal wattandiku ko farata la parce que picc xoo baaxul picc baaxul mukk mukk mukk waaye pexe amu ci dara nga ci mënul moom dangay wax nii rekk waaye dara nga ci mënul moom daal man affaire bi jaaxal na ma ndeysaan léeg-léeg nga di ko tere sax waaye nga romb sa photo bopp ci ci ci oto ah bu ko defee doo xam naka ngay def ndax boroom loo ko wax rekk mu metti ko loolu moo tax ba tax na kon nag suñu sangi bopp yi fi daje ah tabarkalla nu bokk ak ñoom guddi gi soxna yi xëy na caalit am na ci waaye rekk aayul ah, te itam nu ngi gën fedd li nuyoo rekk ci sunu doomi bopp yi tabarkalla tabarkalla ak sunu sangi bopp yi tabarkalla tabarkalla sëriñ Habib Taal ñu yokk ko wante itam ñu ngi jottali nuyoo sunu rakku bopp tabarkalla soxna ummi boog délégation tabarkalla yàllaa leen indi ñu fekk si ko te jataayu teraanga la euh, maa ngi ko nettali soxna xayri euh, dama ko gis bërki démb ci gént mel na ni gàmmu gi la doon waajal euh, mi ngi woo ay jigéen di ma leen présenté benn par benn benn par benn waaye ñu ngi defar ay limonade ak ñu ngi defar ay sirop ñu ngi defar yi ci des la ma xam ni yooyu jàmm piir la yàlla xam na ko euh, maa ngi ko wax xale bi sax ma ni ko demal rek euh, euh, yonent bi nee na woon lu mu doon boo ko gisee bu la neexee defal sarax bu fekkee euh, euh, tiital na la defal sarax nee yépp yëpp sarax rek moo koy déet ma ne ko defar rek nga ndax loolu it yiw la rek tabarkalla yiw la mu mel ni kon mooy daje tey bi tabarkalla yàlla na jëm kanam yàlla na jëm kanam fi mu nekk mën nañ fi toog ba jóg ëllëg sa sax du nu tay waaw ah, tabarkalla tabarkalla lu baax na de yàlla buur bu la yàlla buur bu baax la tabarkalla yàlla buur bu baax la yàlla buur bu baax la yàlla buur bu baax la def yàlla def yiw tubarkalla yàlla defar yëpp na yàlla defar yëpp lu nu nar jàpp ba nu fàtte yàlla yàlla na yàlla jàpp ba mu ko yàlla jàpp ba mu fàtte nu tabarkal loolu rek mooy li nga xam ne moo ne waaye tabarkal la fii ay soppe rek a fi nekk tabarkal la loolu nag na yàlla defar yëpp ñaata waxtu war a jot lii mu ni ñaataa jot kon àdduna sukki na di xaw woon ni six heures ko gis ci àdduna ah loolu day kenn mësu ko gis ah xam naa kon li ci doon tane mooy nu def nu def fatiha rek ñu def ayatul kursi ñu def laqad jaakum ñu def lexlas ñu def falaq ak ñu def ñetti salaatul fatih tabarkalla loolu ñëpp ñu dugal ci sunu soxla ak suñu soxla njaboot ak soxla ñi ci biteeg ñi ci biir ñëpp tabarkalla ñu defe ko noonu fa tabarakallah te ñu def ndànk nag ndànk ndànk ndànk ndànk man na yaayam dafa xaw a tawat sonn na place wallaahi ndeysaan jotul ñëw tey déedéet ñëw tawat